muy Tawfekh ju rëy kenn xamul fu mu yem rahmatulah. waaleykum salaam maa ngi lay ziar bu baax maa ngi ziar naa wér. alhamdulilah. sant bu baax. alhamdulilah Aliou Diagne. jàmm di ci Tawfekh Multi Média. ah dafa mel ni place bi askan bi ñu ngi ko doon xaar bërëb bi yegsi na mën nañoo xam exactement situation bi fan la eh, nekk day mel ni soriwuma dara point E. Eh. waaw waaw Tawfekh Multi Média nag bitik bu bees la bu ubbi. fii mhm. ci Dakar yaakaar naa ñu bëri ñu ngi ko doon laajte. mais mi ngi fii ci Dakar en face université Hampâté Bâ. nekk ci deux yu faas yi. Mhm. nga xam ne kanaal bi moo tox seen diggante. képp ku ñëw ba foofu incha allah lépp loo soxla ci matériel audiovisuel am na fi. matériel multimédia. Mhm. moo xam ay caméra appareil photo accessoire lumière batterie tout ça la lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu audiovisuel ak informatique. moo xam ordinateur la. Mhm. yoo am doole lépp lu si waay soxla daal incha allah bu ñëwee dugg. audiovisuel de manière générale comme ni ñu ko waxee moo xam euh, li nga xam ni yittewoo ngir am image yu gën a yi ñii mhm. ñi yittewoo ngir am son bu gën a baax ñi woon ngir mën a liggéey wàllum audiovisuel mhm. wàllum multimédia de aussi de manière générale ni ñu ko waxee comme it euh, place bi soriwul ñu ngi euh, ci deux voies Canal 4 yi en face université Hampâté place bi laa bëggoon a xool si pour ma amee lu ma yóbbaale tamit. comme li ma ciy dolli rek mooy. li ah. nga xam ne dañuy def wàllu caméra audiovisuel. ñu ay appareil ay caméra am na façon boo bëgg. ak euh, yu àndal moo xam micro lunette euh, batterie yëpp lu mu àndal rek am na fi. ñi nga xam dañuy def wàllu photo tamit. xeet bépp xeetu photo buñ soxla rek am na am na ay Canon am na ay Nikon. Ah, am na façon yu bëri ah. Mhm. ba ci ñi nga xam tamit dañuy def informatique moo am élèves jàng ak yëpp. bientôt tamit ñu xaar li nga xam ne mooy accessoire téléphone. ak eh. téléphone ak yi ñuy àndal. naturellement waaw matériel waaw lépp daal matériel bu baax te dëgër daal fii la am. <laughs> macha allah ay Xtcam prix bi abordable la yomb na waaw te doo ko fayal boo ko fayal GP doo ko jugal avion fii la nekk ci réew mi waaw deux cartes lay jël pare deux micro waaw caméra professionnel la taw feex niñ ci média incha allah ah, mu ngi noonu mbokk yi gis ngeen ko xool naa ko gis naa ko xam naa li nga xam ne moom laa fi fekk ci wàllum audiovisuel ni ñu ko waxee ay caméra benn XDK mu ngi nii XDK am na ñun def production xam nañ ko mhm. SDK am rafet image la. am sorti SDA yi am sorti HD nii en même temps day jël carte SD yu ndaw yi def parce que day am support. en même temps mën na jël carte yu mag yi. jël deux micro waaw caméra yu am solo la yoo xam ne la gars yi def production xam nañu ko. tamit ay appareil photo. ay appareil photo 5D mark 2 mark 3. bépp daal matériel boo la soxla incha allah boo la ñëwee fii taw bi am na jënd yaa ngi ko. waaw comme ni ñu ko gisee rek fii moom ñu jëm ci wàllu prépé yi moom moo fi nekk fii ñu jëm ci côté batterie yi moo fi nekk batterie mineur yi am na double bi bu mag bi am na chargeur lunette am day chargeur Sony batterie Sony di charge di tamit batterie Sony la caméra Sony moom ñëpp xam nañ ko léegi micro ensemble la boo xam ne ànd na ak deux assets hmm. ak deux micro table ak deux micro cravate ak deux micro yi nga xam ne dañ koy lonk ba ñuy def conférence waaw ñuy def conférence euh, def ay réunion imaam yi xam ne dañuy tari ñuy def xutba waaw ah c'est vrai fii trépied kii moom moo fi nekk terrifié ci port micro quoi. ci port micro ñu am dañuy dem ci conférence de presse yeeg ak yenn panel yeeg affaire yeeg yooyu. waaw partie nag mooy côté minette parce que minette yi nag moom. lumière quoi complètement waaw minette yi baaxul koo gis plus. ay yu mag la yu rafet la yu rafet. et puis dafa oyof. waaw dafa oyof ba pare. techniciens yi problème bi ñu doon am ci mooy support bi. bii ngay gis nii day gaaw a yàqu mais bii nii support bu dëgër la support bu dëgër la en même temps am na ay couleur rek yëpp waaw minute bi daal macha allah kii moom boo ko yoree da ngay liggéey ba doyal bu yàqu waaw am na bu mag am na am na am bu ndaw bu mag bi moo nekk nii bii bii xam naa bëriwul luñ koy gis ci cameraman yi bii eh deux lay jël am contact yoo xam ne dañuy mën a yokk lumière bi wàññi ko hmm. mu nekk euh, minet yu am solo daal yoo xam ne Tawfekh multimédia daal nga ko mën a añee. macha allah gis fenn ci réew mi. su ko na xam ne tamit cameraman yi dañuy am problème mu câble. câble micro. Hmm. waaw ay câble yu dëgër la. waaw boo xoolee newul câble yoo xam ne dañ ko defaree fii. Hmm. câble câble câble yu dëgër la. câble micro yu dëgër la. waaw am na yo am na bu 10 mètres am na bu 5 mètres. 5 mètres bi moo nekk nii 10 mètres bi moo nekk nii. cameraman yi nga dañuy dem ci terrain bi wala conférence de presse yooyu. ñoom dinañ ko soxla daal waaw fii nga gis nag tamit eh, ci kaw nii ay minet moo fi nekk lii ay xeetu minet yu bees la yoo xam ne doo gis fenn waaw yii moom waaw miinu miinu ñëw mën nga xool bu baax bii yii taw feex lint média rek yu bees la xam naa cameraman yi xamaguñ ko nag ah waa gaa gaaw leen ngeen ñëw boo ñëwee ba ñam ko yéen ñëpp ngeen ñëw waaw yow boo montee batterie nii ci kaw waaw. waaw. mën leer la. da ngay mën a manipuler image am couleur. d' accord. bu la neexee nga def blanc. waaw après bu la neexee nga wàññi yokk. waaw yii moom. waaw mu ne extra extraordinaire yii moom gars yi xamaguñ ko. waaw yii moom ñu ngi ne du bees la. fii da nga ko mën a fekk ah. waaw ngay def ne monté sa caméra. yaa ngi ko doon junj léegi day mel ni fàttewoo ñi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum digital. Eh, waaw donte bëgg ngeen téléphone yi tamit disponible na. waaw téléphone yi. xam mhm. nga dañoo toll jamono joo xam ne jamonoy communication la quoi. waaw mbooleem site internet yeeg. mouvement politique yeeg. daayira yeeg ñëpp am page yoo xam ne da ciy def seen activité. ñi nag waaw ay tiktokeur lañ ci daf lay yombalal da ngay jël rek branché sa téléphone moo xam pixel lay jël wala iPhone. waaw am na ci boo xam bu la neex na mën nga ci def plateau comme yi ñu takk. Mm-hmm. ñaar ñoo ngi wax kenn ku nekk da da ngay am lépp. léegi daal ñaari micro lay am ñaari micro comme bu dee bii deux micro lay am. mën mm. nga def comme plateau bu dee bii bu dee da ngay jël benn interview nga mën nga ko utiliser waaw facile daal bu dee bu dee ne micro boya fii bi nga xam ne en général gars yi def ay plateau yooyu def koy soxla micro yu am doole la yu baax yaakaar naa ñuy def sii moom la ñu woy micro cravate waaw micro cravate ok am solo yii tamit ay micro yu dëgër yoo xam ne doo gis benn moom ñi moom marque bi moom doo gis benn taw feex rek nga koy gis Tawfekh multimédia ngi rek ñu koy fekk pour yéen ñi nga xam ne ay kuréel kat ngeen wala ngeen doon ay reporter Seyda Niger Seyda Niger xam nañ ne micro bi mooy marque bu efficace micro bi boo ko xam ne am na micro la moom koo ko dóor <laughs> <laughs> waaw incha day ànd ak câble mag yëpp ensemble waaw ci prix yu xéewale nag boo ñëwee Tawfekh multimédia rek incha allah di ngeen ko ñëw si quatrième partie mhm. quatrième partie bi nag moom Ah, boo xoolee ci kaw nii da ngay gis ay appareil photo am na ay appareil photo quoi boo xoolee yii sept mille deux cent la sept mille deux cent nga xam ne appareil waaw appareil bu am dooleel waaw façon buñ ci bëgg rek am na am na yeneen ak yeneen ay photo carte SD la ay carte soixante quatre soixante quatre giga waaw te filma quatre quatre waaw prix yu feebalee yii yii moom gars yi taamu nañ ko micro yi micro yi am dooleel boo xoolee léegi daanaka reporter yëpp moom lañu yor waaw micro am doole ba pare en même temps mën nga si def ko plateau bi yëpp waaw ok deux micro boo ko téyee rek xam ne pare day jël chargeable waaw day jël am doole xam ne mën na dem lu sore sore waaw ah, kon nag yéen ñi ko soxla ñëpp rek xam ne ne disponible na fii Tawfekh na dina jàpp. moo nekk noonu ñu dem ay xaaru. adaptateur la yoo xam ne gars yi ñu seen dernière machine yi dernière séance waaw ay am type C USB type C SD ak type C HD yu bëri ah c'est important original bi la nag bii moom xam naa mooy def dama ko yóbbaale il faut ma jënd bii moom naam ko waaw ñu gën ay façon micro la yoo xam ne reporter yi dañ koy soxla ak élection yi jub ci nii waaw ah, yéen yor sonorisation wala yéen yi nga xam ne da ngeen def ay yi am doole la waaw ah, yi moom boo ko téye élection yi mhm. kenn du wax may ma ma jàll a yaa ngi may lonk aussi gars yi dañuy soxla support yi nga xamante ne bii dañu mën a jël lu bari. Ah. ak ay. waaw yi ay yi ay ay ay ah, la yu dëgër la. waaw ay touche bala yu dëgër. waaw ñu marque yi gars yi liggéey ci wàllu audiovisuel xam nañ ko. touche yu dëgër la. waaw ñu moom prix yu xéewale la boo leen ñëwee allah. yow mhm. leen ko wàññi dafa leen ci prix yu xéewale instant bi da nekk promo nag. ah ku ñëw rek soobee yàlla lépp loo soxla rek dinañ ko dañ la ci defal daal. am ah, na un tera am na deux tera am na am na cinq cent giga waaw même chose que pour euh, clé yi aussi ñoo bokk lu ñuy liggéey waaw ñu nekk loo xam ne dafa nekk pour euh, mën a jël contenu bu bëri waaw même am na ay clé ay clé USB ay e seize giga aussi am na huit giga am na seize giga léegi am na wii cigare. et puis échantillon lépp bëgg 128 tamit. waaw waaw li nga wax. lépp lu ci waay soxla waay ci kale. lépp nombre bu ñu ci soxla. incha allah mën nañu ko mën ko war a def ci prix bi tamit doo leen présenté façon traité boo xam ne yaakaar naa traité bi boo ko gisee nuroo naa ak yeneen traité yi yuñ baaxoo gis ne bokkuñu. bii hmm. moo ko ëpp gën kaa gudd. waaw moo ko ëpp gën koo gudd bii dimension yu mag la waaw dimension yu mag la bii yaakaar naa ni ngeen koy gis ñu yor ko bëriwul te bu am jëmm la boo gisee nag ak photo bi da ngay jàpp ne moo gën a niroo mais bokkuñu bii baaxoo yor boobu mille cinq cent la waaw bii boo xoolee trois niveaux la waaw bii boo xoolee te na cent quatre-vingt-dix-neuf bi neuf cent quatre-vingt-dix-neuf bi waaw boo xoolee bu dee bee deux la am mais bii trois la am trois niveau la trois niveau la mhm. ngay gis un niveau de bee bi li muy gis mhm. bu ma defee ni moomu uh-huh. waaw dèjà bi moom yi baaxoo bi bokkul te gis nga yax bu dëgër mhm. da ngay liggéey ba doyal def dara disponible bi lépp lu ci waaye soxla rek ñu taw feex nañ ci ni jàpp incha allah. jërëjëf sëñ Mourtada liy si nag yi xaju si ci nii ni ñu koy présenté yëpp mën ngeen ñëw fekk fi lu gën a mucc ay yëpp ndaxte euh, fii mooy Tawfekh multimédia sëñ Mourtada ñu ngi koy sant bu baax si présentation bi. waxoon naa leen ko il faut mu yóbbaal dara bii moom yittewoon naa ko te loolu boo leen ñëwee di ngeen fekk leen loolu gën a yittewoo. mooy mooy mooy première client rek. Ah, na ñàkk waaw ah, macha Euh, adresse bi benn la amin adresse benn la soriwul ñu ngi fi nga xam te ni bi moo di deux voies yu canal 4 ci diwaanu Fann Point E en face université Amadou Hampâté Ba bu fekkee ne da ngeen a toog seen i kër xam ngeen ni dañu waxee Tawfekh multimédia xam ngeen dafa digital mën ngeen a woote ci 77 251 04 05 77 251 04 05 ngeen def seen commande ñu livre leen ko commande yu mucc ayib waaye tamit garantir leen li nga xamante ne bii mu nga ngeen mën a jël si seen produit yi nga xam ne moo jëm si wàllu multimédia multimédia digital li nga xam ne moo di Tawfekh Production mën leen a gunge seen i événement ni ñu ko doon defee laata ñu yegg seeg yéen si Tawfekh multimédia Tawfekh multimédia yi noonu mbokk yi lii seen place la seen place bopp la def leen ko seen yëf yi bopp ndax li nga xam ne moo di multimédia ak li nga xam ne moo di communication télécommunication dafa bokk si réew bi